Euh, jëli ko Alassane Balde mi ngi Liberté 6 Alassane nuyu nañu la dalal ci édition spéciale bi nga xam ne euh, ñi ngi ko euh, tàmbali bi président de la République Macky noppe noppee jàkkaarloo bi mu doon amal ci yenn ci taskatu xibaar yi ñoo ngi lay nuyu Alassane Balde. <laughs> Ah, maa ngi lay nuyu maa ngi lay di wax ni rek nag comme euh, boo xoolee ci mbedd mi tamit daanaka sénégalais yi euh, bëri na ñu nga xamante ni euh, déglu nañ ki nga xamante ni mu le président de la république li nga xamante ni wax na ko ndax nag seetlu nañ ne ñu bëri donte nag nit ñi ngi doon waaj a ñibbi ndax guddi na mais les gens avaient été scotchés si li nga xam mooy seen ay téléphone ngir déglu li nga xamante ne nag moom la président wax gannaaw bi nga xam ne dañ ko annoncé woon lu jëm ci élection présidentielle te xam na nag élection yi dafa doon loo xam lu soxal kii moom marchand ambulant la sëñ bi noo tudd alors euh, déglu nga président Macky Sall. waaye déglu naa ko waay. lan nga mën a jàpp ci li mu wax. waaw li mu wax dafa ne le deux la euh, kii bi jeex ko moom ci lay moom ci la ah délai jeex ko n'est-ce après moom mu ne léegi après conseil na dañuy ñëw après ñoom ñu daal di waxtaan quoi benn rafet lu nga ko loolu nga doon xaar ci moom wala amoon leneen loo doon xaar ci moom lu dul lool waaw rafetlu naa ko en même temps it pour man dama jàpp ne da koy yeexe quoi. Mhm. ndax man dama jàpp ne. Euh, loolu noonu da ko waroon def bu yàgg noonu. Mhm. ndax bu ko defoon te man damaa jàpp ne jaxasoo bi am fii ci réew mi nii. Mhm. pour man du am ko mhm. hmm. kon euh, Fatou Abdou nekk benn ci réaction yi fii nag euh, jamono ji gis nañu commercant yi ñoo fi gën a nekk ak ndaw ñi ñi nga xamante ne nag ñi ngi fii ku ci nekk nag yaa ngi sa activité di li nga xamante ne mooy sa activité donte nag ils étaient comme ni ma ko waxee sànq rek ci li nga xamante ni mooy seen ay téléphone ndax dafa fekk ñu bëri doon doon ñibbi mais nag li am solo rek mooy euh, ñi nga xamante ne sekk nañu waxtaan ak ñoom daal wax nañu daal ne liñ doon xaar mooy surtout que euh, président daal di décider nga xamante euh, moom la doon xaar ndax bëggoon nañu mu wax leen élection yi ban date am mais nañu lu baax la ndax jamono ji nag nit ñi sonn nañu ñu bëri nag ñi ngi fi daanaka li leen yitteel mooy seen seen nekkin ba tax na nag ñu jàpp ni lu ci boo le discours également c'est un discours boo xamante quand même euh, bu ñu mën a nangu bu ñu mën a dégg euh, moo tax nag euh, ñu daal di rafetlu li nga xamante ni moom la président def kon bokk Fatou dañuy jëm a xool ndax nañu mën am quelques réactions sëñ bi salaamaaleykum maa ngi di nuyu alors dañ bëggoon rek ngeen laaj waxtaan seen seen xalaat danoo gisee li président Macky Sall wax. s'il vous plaît. Hmm? Ah, vous avez écouté le président de la République. j'ai suivi juste qu'il était. euh, qu'il était devant le, la presse aujourd'hui. Ouais. Il a fait une allocution devant la presse, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Parce que moi, honnêtement, j'étais pas au. Donc, euh, globalement, un dialogue, il a appelé un dialogue d'abord pour décider de la date justement de la tenue de l'élection présidentielle. Est-ce que vous attendez à ça Mais bon, c'est une, une décision qui est sage. C'est une sage décision déjà parce que. Euh, il va de la survie du Sénégal, de la paix au Sénégal. Donc il n'y a pas quelque chose de plus important que la paix dans, dans ce pays. Et le Sénégal, c'est une terre de paix, euh, le pays de la teranga. Donc euh, s'il y a un problème, il faudrait que tous les filles, toutes les filles et les fils du Sénégal puissent se réunir afin de, de dialoguer et trouver une solution, un consensus ensemble. Je pense que c'est une sage décision. Et C'est ce qu'il ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Je crois que la première fois, il avait déjà eu à faire un dialogue avec euh, avec les, toutes les parties vives de la nation. Donc déjà ça, c'est aussi une bonne initiative. Donc on attend juste le concret, on veut que de ce dialogue qu'il y ait vraiment des solutions concrètes pour euh, la paix au Sénégal, pour qu'enfin euh, le Sénégalais puisse dormir en paix. Parce que nous, nous sommes dans ce pays parce que euh, le Sénégal a toujours été réputé comme une terre de démocratie et de paix. Donc notre souhait que ce pays soit toujours en paix et Macky le président Macky a pris une sage décision. C'est vraiment à féliciter. Merci. Euh, déglu nañ ko ci sénégalais yi sëñ bi déglu nga président de la république euh, lan nga mën a jàpp ci li mu wax. ci euh, décision bi mu jël. parce que je il paraît que dafa wax ni la deux. lay la pouvoir am di jeex. waaw loolu ngeen gën a jàpp ci li mu wax daal daanaka dafa waa parce que man dama ko xool brièvement nii rek vite mooy loolu. Mm-hmm. waaw mais man daal li may wax daal mooy bu ma sañoon moom. comme li mu wax na ko respecté mu dem après euh, les autres n'ont qu'à tenter leur chance ah yeneen candidats yi déposé que les élections se fassent euh, normalement quoi dëkk bi bañ am ay yëngu ay affaire demee noonu yëpp parce que sonn nañ ci loolu wax dëgg yàlla parce que nit yi liggéeyatuñu vakeewuñ vakeetuñu ak seen seen occupation et autres. boo boo xoolee sax njiitu réew lu mu gën a wax mooy nee nañ jiital nañ teg lépp. jiiteel intérêt supérieur de la nation kon dafa mel ni Sénégal moo tekk ci kaw ñëpp ndax loolu loolu ngeen doon xaar ci discours président de la République. waaw mais est-ce que tamit li muy euh, li muy faral di wax tous les jours est-ce que dëppoo na ak li muy def ça tamit ça tamit c'est très important dëgg la mooy njiitu réew yi moom moo jiite Sénégal waaw te man je n'ai contre lui ah mais bu ma sañoon comme moom mandaawam jeex na et celui qui avait juré que du def trois mandats na bàyyi yeneen candidats yi comme li ma waxoon sànq rek na bàyyi yeneen candidats ñu def élection yi normal après. ki nga kon boog Fatou xam naa du ma dama lay delloo parce que jamono ji ngi fi nga xamante mooy rond point Liberté 6 kon boog le sentiment le mieux partagé mooy les gens sont unanimes à dire que effectivement il faut ci impasse bi euh, et que loolu euh, président wax na ko parce que aujourd'hui c'est une dynamique de paix une dynamique bi nga xamante mooy euh, Sénégal nekk benn te loolu yaakaar naa ñun ñëpp ko bëgg boo xoolee nag mi toll ci jafe-jafe xamante ni moom la crise bi bi Sénégal di dund jàpp naa ni c'est une décision bi nga xamante ni euh, des nag moom peut-être les acteurs politiques vont essayer de se retrouver ci li nga xamante sur un consensus pour aller sortir justement de ce guépier bi nga xamante moom la Sénégal nekk kon Fatou dama lay dellu antenne bi di wax ne nag la vie continue normalement ñi yaa ngi gis yaa ngi gis ñi yaa ngi fi euh, restaurant ñi ngi fi ñi ngi ci car rapide ñi ngi ci clando yi nit ngi dox euh, tranquillement na benn ma jël donc euh, di sant yàlla rek euh, di waxaat alhamdulilahi rabil alamin man la monsieur Madiaw Xor Mbeng nekk le secrétaire général de du syndicat unique des de Dakar Dem Dikk di rek ndax réew mi jàmm ci xej président su wootee jàmm man je pense que nii képp kuy responsable politique wala nga nekk responsable syndical da nga war a sàkku jàmm ci réew mi li may wax moom wax na ko mandaam jeex na na ñëpp delloo soir seen xel xam ne Sénégal c'est la teranga d'abord nit ñi la yàq réew mi amul sens ndax tey les hommes passent les jours demeurent kon lépp lu ñu mën a def pour sauver Sénégal pour sauver sénégalais yi nañ ci dox man loolu laay gëm di waat ñëpp muy opposition bi muy fu waaye mën a far di politique nañu xam ne politique jaamu yàlla la te nous voulons un Sénégal de paix un Sénégal meilleur parce que Sénégal suñu réew la te kenn mënu ko yàq te kenn mënul dem tamit bàyyi ko bi parce que moom la ñu am loolu rek laa amoon comme message ndax vraiment naa ni taxawaay bi rafet na yow na ñëpp sàkkuwaat jàmm ñu ànd liggéey pour suñu Sénégal jëm ci kaw ca kanam di nuyu nag waa waalo samay mbokk ñëpp ñëpp na ñëpp maa ngi si jàmm ji daal jërëjëf kon Fatou mooy sa édition a baax Alassane Balde moom mi ngi woon Liberté 6 gis ngeen la réaction des Sénégalais wala de quelques personnes yi nga xamante ne euh, li amoon fale nga xamante ne moom mooy euh, Kaolack euh, waaye it dañu dem ni ma ko waxee tout à l'heure ca Touba eh, ngir eh, bu ñu noppee nag mën a daal di door li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ak suñu koy invité yi nga xamante ne ñu ngi en route mais également professeur Ngouda Mboup qui est déjà sur place eh, dinañu ñëw ngir mu mën a introduire mais dañuy fekki waat a Diop le temps que peut-être ñeneen ñi di di tàmbali Fatima ba tey par rapport aux réactions yi nga xamante ne wax nañu ko am jóge ci ñi nga xamante ne aujourd'hui moom mooy les internautes effectivement Fatou euh, bu ñu continuer waatee un peu sur euh, réaction yi nga xamante ne internet yi euh, jot nañ ko def durant discours bu le président de la république bi mu doon janook taskatub xibaar yi am na nag ñoo xamante ne ba tey ci commentaire yi ah, nee na Macky Sall le président de la république pareegul sax bay dem donc ñoom loolu la ñu jàpp ci commentaire yi Fatab du am na aussi ñeneen ñoo xamante ne dañu ko remercier ne ko merci président de la république ñi ne conférence de presse la boo xamante ne saful yàpp saful jeunes donc commentaires yi noonu lañ ko gisee ci biir fi nga xamante ne moom moo di rek ci euh, ñi nga xamante